auzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi mbokki àdduna bi mbokk yi seetaan Sunugal 24 maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaahi sayyidil wujud salawaatullahi wa salaamu alayhi di wax alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki jullit yi mbokki àdduna bi mbokk yi seetaan Sunugal 24 maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaay saydil wujud salawaatullahi wa salaamu alayhi di wax ne dellu si waat nañ ak yéen niñ ko baaxoo def ci seen émission bi nga xam ne moo tudd leerlu ngeen ci ànd ak seen mbokk oustaz Basirou Thioune euh, mbokk yi waxtaan bi nga xam ne moom lañ fas yéene indi te incha allah mooy lu ñuy wax nger muy corruption xam ngeen ne nger nekk na loo xam ne lu lëmbaaji àdduna bi la surtout nag suñu réew yu ndaw yi surtout nag Sénégal gi nga xam ne fi miin mbokk yi day daane ab ab société day yàq réew day daane économie kon nag yow mi nga xam ne jullit nga gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëm ne boo faatoo da nga dékk jàkkarloog sa borom subhaanahu wa taala bàyyil xel bu baax liñ lay wax incha allah ñu ngi ñëw ci ministères yi hôpitaux yi mairie yi tribunal police douane ak gendarmerie nationale mbokk yi xam ngeen ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu leen lekk seen alal yi ci seen diggante ci ay caaxaan mooy nit ki booy lekk alalam na ko lekk ci teeyug bakkanam jaay ak jënd liggéey fay walla sax may saraxe ak yu mel noonu waaye bul nax nit ki ba lekk alalam ci loo xam ne neexu ko moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil wa tudlu bi ila al hukkaami li taakulu fariqan min amwaali naas bil ismi wa antum taalamuun la sourate Baqara aya 188 borom bi subhaanahu wa taala ne bu leen lekk seen alal yi ci seen diggante ci loo xam ne ay caaxaan la ci loo xam ne nii tegewut ci dëgg déedéet bu leen ko def watadula biha ilal xukkaam dem tribunal jël avocat see alal li maam li baas muy sama caméraman bi ndax yaa ko dëpp yaa ko ëpp doole am nga fa nijaay am nga fa xarit hmm? am nga fa koo xam ne ni sa allié la ci wàllu politique ba tax nga jaay ko doole ba lekk alalam boo tëddee guddi sa néeg tam sa conscience du du tranquille jënd nga ci oto bu rafet takk nga ci jabar tabax ci kër jënd ci ay ginaar ak ay jënd dugal sa firgo di jox sa njaboot ñuy lekk allahu akbar borom bi ne yéen a ngi koy lekk waaye yéen a gën a xam ne li ngeen di lekk baaxul wa antum taalamuun ku lekk alalu jàmbur ku nekk te xamal nga ko sa bopp xanaa kay nga nangu ak nga bañ a nangu rek waaye nag bu ëllëgee boo jàkkaarloo ak sunu borom ki nga jaayoon doole ki nga jaayoon kàttan ba lekk alalam bu ëllëgee sunu borom nee na subhaanahu wa taala ko ko fay. moo tax mu ne ñi nga xam ne nii ñooy lekkkat yi nger yi ñi nga xam ne ñooy ay fenkat yi ñooñu ñooy ñi nga xam ne nii ñooy lekk alali jàmbur yi ci ay caaxaan loo xam ne nii tegewut ci dëgg waaye nag borom bi subhaanahu wa dafa wax ne euh, ñi nga xam ne nii. ñoom ñooy naafiq yi ñi nga xam ne gëmuñ yàlla seen gëm yàlla sorihul dañuy déglu ay fen waaye it dañuy lekk nger bu ñu ñëwee ci yow bëgg nga àtte leen mun naa mën ne ko àtte leen bu la neexee waaye bu la neexee nga du mooyu leen bañ leen a àtte waaye nag boo demee ba di leen àtte fahkum baynahum bil qisti inna allaha yuhibbul muqsitin soo demee bay juger bay atte atte bi na ko teg ci dëgg ndax yàlla kat bëgg na ñi nga xam ne nii ñoom ñoo dëggu nanga nga maandu ci atte ba ndax yàlla dina kontaan ci ñi nga xam ne ñoom maandu ci seen atte mbokk yi yonent bi alayhi salaatu nee na laanallaahu araashi wal murtasi yàlla rëbb na ki nga xam ne mooy nger ak kamuy nger bu ñu la ngeree nga nangu yéen ñaar ñëpp suñu borom sori na leen yéen mën dem muy at tardu wal ibaad an rahmatillah daañu la dàq soril la li nga xam ne moom mooy yéen mën yàlla suñu borom subhaanahu wa taala muy képp koo xam na nga lekk alalu nger moo xam ci secteur boo mën a nekk loolu moo tax yow mi nga xam ne ni policier nga nga taxaw ci kaw yoon bi oto ñëw nga arrêté ko mu taxaw nga laaj ko ay këyit ay këyitam matul bindal ko këyit mu dem fay ji bul nangu mu lay nger lan moo tax lam lay jox noona sa lor la sa ngaañ la lam lay jox noona baaxul ci yow bu ko nangu amal full ak fayda bul yóbbul sa njaboot loo xam ne lewul moom moo tooñ moo jalgati teg ko ci yoon moom moo tooñ jalgati indi ab dawal oto boo xam ne amut vignette wala amut carte grise wala chauffeur bi amul permis ne ko gerel ne bindal ko këyit mu dem fay ci keesu buur waaye bul nangu mu lay mu lay koromp di la jox xaalis nga di ko lekk bu la ko joxee nga ne ko ah yow ñaari infraction nga def benn yow valable deuxième ba deuxième maa nga danga may danga may nger kaay duma ko duma yu metti amal fulla confiance dañ la jox dañ laa jox confiance bu mu la nax ngir régler ay problème am moom ba nëpp yow nga ji am sa digg sa digg sa borom lu ko nangu sama jarbaat bu ko nangu amal fulla sama grand frère bu ko nangu amal fulla bu fekkee ne tam yow da nekk douanier maa ngi nuyuwaale au sama booy bi nga xam ne douanier la nga boo jàppee koo xam ne fraudeur la mu bëgg laa jox alal pour nga bàyyi ko mu dem bañal parce que dafay daane réew mi baaxul fraude baaxul ci am réew dafay daane am réew te lu ñu tere la nit ki def na lu ñu tere ba noppi mu ñëw nga jàpp ko teg ko ci yoon bul nangu mu lay jox xaalis dugal la ci délit bi mu def ndax moom def na loo xam ne nii réew mi da koy tere ba noppi bëgg laa dugal yow itam ci loo xam ne réew mi da koy tere bul ko nangu boo ko jàppee mu yor furut ne ko hey xam nga lan la yow moom birkaat nga jëm si siiral matériel bi mu yore woon nga xam ne ci la defoon euh, bakaasam yooyu téye ko waaye bul nangu mu lay nax jël as wecce tuuti jox la nga bàyyi ko mu dem bu beneen yoon ne mu demaat continuer waat di foroti déedéet bul ko nangu ndax lim lay jox nun nga di ko lekk baaxut ci yow mi koy lekk baaxut ci sa njaboot la nga leen di jox safara la bul ko nangu amal fulla ak fayida yow sama jarbaat yow sama rakk yow sama grand frère am leen fulla ku leen bëgg a nger jox leen alal ngir infraction bu mu def bañ leen ba leen ko nangu waaye it ñi nekk ci ministère yi ak ñi nekk ci mairie yi yéen askan wi ngeen di liggéeyal askan wi ngeen di liggéeyal askan wi ñoo leen yoreel salaire di leen ko fay këyit dañuy toppatoo si foofa di ko lijjanti seen droit la ñoo ko moom buñ ñëwee na ngeen leen ko jox ñu dem ñibbi bu leen tixee benn këyit ngir lan bëgg borom am fu mu jaar ak yow wala am num def ngir nga régler këyit booba bul ko nangu yow yaa ngi liggéey bu weer deexee ñi fay la sa saleer ba nëppi mu ñëw fekk fi ay kayit yu baree bari fekk na fi kayit ak Ibrahima Babacar Ismaila Ishaaqa Libaas Bachir mu ñëw ne la damaa bëgg nga jàpp ci lii ab 10 000 boo xamal la ko te nga réglé ma sama kayit bi bu ko nangu bañal 10 000 yooyu neex na de wallaay 10 000 yi neex na mu wër na bi ngay xëy xëyaale ko mu ñëw jox la 10 000 Babacar jox la 10 000 Ismaila jox la 10 000 moo Modou Basir jox la 10 000 nga boolante ko mooy 30 000 nga réglé leen seen kayit ñoom ñi rangoon bërki démb ak bërkaatu démb toog di xaar nga jël 30 000 yooyu jaar ci marché jën daal di jënd jën yu baale jënd ay ginaar yu baale jënd ay fruits dem dugal sa firgo jox sa njaboot. macha allah allahu akbar mbokkam jullit neex na tey de waaye est-ce que neex na ëllëg yowmal qiyaamati est-ce que neex na ëllëg xanaa gëmoo yàlla xanaa gëmoo yonent bi xanaa gëmoo bis penc seet xanaa gëmoo yàlla gëmoo yonent bi gëmoo li nga xam ne ni mooy bis ndax yonent bi nee na laana allahu raasi wal murtasi waaye it ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon yi ñu leen di masaw ndeysaan gendarmerie nationale ñu amee suñu sécurité nit ñëpp dugg ci seen kër yi nit ñëpp seen soxna yi taalal leen ay cuuraay wàcceel lalal leen ay dara rafet ndeysaan ñoom ñu bàyyi ko fi daw ba ca àll ba ñu taxaw fa ndeysaan ngir suñu sécurité ñun di ñu aar waaye it ngir sàmba booy oto bu nekk en sécurité insécurité ñu taxawal la pour léegi clients yi nekk ci ay condition yoo xam ne yu fiable la mu dawal ba ñëw nga gis ay pënum baaxul muy sur surchargé moom dafa seet la ko arrangé walla ay kayitam valabulul nga gere ko mu taxaw nga laaj ko ay këyit valabulul wala nga xool ay làmpam baaxul walla ay pënum baaxul nga di ko bindal mu bëgg ñëw bëgg laa koramp bañal ne ko man duma taxaw ci guddi gii du taxaw fii ci guddi gi nit ñëpp toog ci seen njaboot ga man ma nekk ci àll bi bàyyi samay jabar bàyyi samay doom ba noppi nga dem yàqal suma liggéey duma ko nangu man dañoo am ci man confiance dañ maa wóolu man dama waatoon sa xaalis boobu tee ko ndax man sécurité ñii nga yëpp moo ma gënal sa mille francs yi nga may jox wala sa 2000 francs yi nga may jox du ma ko jël bindal ko kayit ba beneen yoone du ko def na fay dëgg neexul de te duma sa neex hmm? ñi nekk ci mairie yi fonction publique la askan wi yëpp a ci bokk yem impôt yi lañ leen di fayee nit ñi am ay këyit ñëw di ko toppatoo nga naan ko tey suba ginnaaw suba ba mu ñëg làmb poosam jox la wala mu def ni kële defoon fekk fi ay dossier yu bari mu ñëw bëgg moom ñu régleel ko dossier tey tax mu bëgg làmb poosam jox la dara ngir nga régleel ko dossier moom mu dem tey tey nga nangu ko ba nëppi jël 10 000 francs yooyu faj ci sa soxla yaa ngi lekk safara bañal bu leen ko nangoo jël wax leen ne réew mi nanguwul loolu àdduna bi nanguwul loolu diina ji lislaam nanguwul ko waaye nag ci réew mi nga xam ne ci la nekk muy Sénégal am na ñu baree baree bari du ñu tegee ci njub seen àdduna yëpp mooy ku ñu nger rek ba ko nangu naka noonu tam ñi nga xam ne ñu nekk ci tribunal yi juge yi ah président tribunaux yi greffier yi procureur avocat yi da dangeen da sonn ci seen njàng da ngeen sonn ci seenum njàng seen papa yi fay ay formation ngeen galéré souffrir daj ay coono yu metti ni njàngum droit métti ni njàngum droit métti ngeen jàng ba noppi ñu teg leen ci ay place ne leen liggéeyal leen askan wi nga xam ne bu ngeen fi amutoon réew mi jaxasoo justice réew moom amul rek baaxul yéen yéen a tax réew mi estable yéen a tax nit mën a tëdd ba nelaw nelaw ba yàndoor ndax lu tax mooy nit ki su ko wóoroon ni bu defee njombe kenn du ko yóbbu tribunal jugé ko pour war ko yóbbu prison kon bët bu set nga dégg rey nañ nit bët bu set nga dégg ne euh, agressé nañ ma sàmba ma demba waaye nag yéen ñooñ lañu war maal yéen ñooñu la ñu ragal kon nag yéen ñooñu am leen fulla ak fayda ku ñu bëgg leen di nger bañ leen yow avocat bi ku la bëgg a nger bañal yow procureur ku la bëgg gañ ku bëgg a nger bañal ne ko man dama yor sama salaire damay yóbbu lu lew jox ko sama njaboot waaye duma leen jox lu lewul ndax am naa sama salaire damay sàmm sama dignité damay sàmm sama ngor ak sama personnalité loolu mooy fulla bu ko nangu moom mu ñëw ngir régler problème am ba pare yenn la bàkkaar bi yow ay këyit la bëgg liberté la bëgg tooñ na def na infraction mu ñëw bëgg teg ci tooñ yooyu nga di ko jàppale ci tooñ yooyu bul ko nangu ne ko man am naa lu ma fajee sama soxla sama salaire bi doy na ma damay gore yem ci doo ci sama njaboot bu nekk lu lew bu ëllëgee su ma deexee mën a tàlli bu leen ko nangu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne dangaa yore ndomb tànk war a fajal nit ñi seeni soxla régler leen seeni mbir nee na nga fermer say buntu tëj say buntu ba nit ñi mënuñu am accès ci yow soit ngay sil imam wala ngay sëriñ borom xam-xam wala ñu jox la service nga fermer say buntu ba doomu aadama yi mënuñoo am ci yow accès pour régler seeni problème nee na suñu borom subhaanahu wa taala dina tëj yow itam say buntu yi nga xam ne moo nekk sa diggante ak asamaan say soxla suñu borom du la ko fajal suñu borom dalay seetaan noonu bàyyi la kon nag ngeen gis ne képp koo xam ne danga yor liggéey amul fu la fayda ci sa bopp dégg la yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax bu nit ñi ñëwaan di xuloo si ñëw ci moom ñëw taxaw ci bunt këram dafay taxaw ñëw jàkkarloog ñoom ne leen innama anna basharun dangeen xam ne man nit laa waaye nag wa innahu maa yatini alxasam a yatini alxasam fa laala baadan an yakuna ablaxa min baadin da ngeen di xuloo ñëw ci man pour ma atte leen mu ne waaye léeg-léeg nag ngeen gën a ñawante làmmiñ gën a fasaaxante gën a pànkante mën naa am nag ma atte benn atte boo xam ne nii damay yaakaar ni ki gën a fasaa làmmiñ ki gën a wax wax ju wax ju dëgër ma jàpp ne moo am dëgg waaye nag xam ne dëgg góog nga xam ne moom laa ko jox te fekk na moomut ko muy àq jàmbur na xam ne loolu noonu kat xitaatun minan naar fal yaqusha aw la yaddaha bu ko neexee mu jël bu ko neexee mu bàyyi waaye nag xam ne loola safara la ëllëg yowmal qiyaamati allahu akbar gis nga ñonti bi ci ni mu maandoo woon ak démocratie ak justice lan la daan wax mooy wa ayumallaahi addis bii mooy bi nga xam ne moom la ñuy jeexalee waxtaan bi incha allah benn addis la bu gàtt maam libaas yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa génne wa ayumallaahi law saraqat fatimatu bintu muhammad la qataxtu yeddaha mu ne géñ naa ko ci yàlla ne fatima doomu muhammad bu sàccoon ma dagg loxoom fatima doomi muhammad gis nga sax waxut fatima bintu rasul daf ne fatima doomu muhammad bu sàccoon sax ma dagg loxoom loolu mooy maandu kon justice warul am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñëpp ci war a yem ku def infraction rek nañ ko ko teg bu dee ne baadoola la nañ ko daan bu dee ne buur la nañ ko daan loolu mooy li nga xam ne nii mooy liy doxal am réew kon mbokki jullit yi mbokki àdduna bi fii la ñuy yemale seen waxtaan bi incha allah di leen jox dig daje beneen yoon ngeen ci ànd ak seen mbokk Basir Thioune jaxalana allahu min allasina yastamihuna alqawla fa yattabiuna ahsana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu